na ngeen ko téye bu baax a baax a baax seeni dëgëj waxin rek la sunna kenn du ko téye ci dëgëj mooy ak ab su taagal boo mën a dajeel ku mën a taxaw sa kanam bëgg la koo xañ bu jaree nga jox ko bakkan bi nga jox ko bakkan te mooy ci alxuraan ak su jaree nga ñàkk àdduna ak li ci biiram na la ko jaral te nga mooy ci alxuraan ak sunna su jaree ñu bàyyi la nan la bàyyi te nga mooy ci alxuraan ak sunna su jaree ñu tuumaal la fa soo tuumaal bu ne nangul da nga ngoy ca alxuraan ak sunna su jaree ñu dëkkal la foo dëkkul jox lay tur yoo moomul di la xoole nun la warta xoole wala sax ñu feggal la ci société bi nangul te ngoy ca alxuraan ak sunna ñu leen di dénk di denk suñ bopp ragal yàlla subhaanahu wa nga la waay bu ñu faatu lu ñu nekk ay dëgg-dëgg jullit yàlla nu ko yàlla defal bokk jullit ñi dinay baax yeesaa ñu xuus ci biir waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinay baax yeesaa ñu eh, delluwaat ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wa dinay baax yeesaa ñuy fàttaliku njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa loolu lépp nag nun koy mën a ame mooy delluwaat ci ay xadiisam delluwaat ci sunnaam delluwaat fa ñu dajale ay waxam muy téere yi nga xam ne moo aju ci xadis moo tax suñ xutba tey dañ koy teg rekk ci benn xadis boo xam ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jàkkarloon nag ñum bëggoon lool ñum fonkoon lool ñum nawoon lool ñum yéene lu baax ba yàlla subhaanahu wa taala di ko seede nan laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bil muminina raufur rahim mu jàkkaarloog soppem yooyu muy saxaabatul kiram ridwanullahi taala alayhim ca jumaam ju tedd jooja nekk ca madinatu rasul sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ni xadis bu wér la al imam abu daawuda solo na ko al imaamu tirmisi solo na ko cheikh albani wéral na ko saxaaba bu tedd bu sell bu ñuy wax abu najeex al irbaad ibnu saariya solo ko jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na benn bis danoo toog benn bis danoo nekk yan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu dénk nee di ñu waar waar bu jotale waar bu am jeexantal waar boo xam ni am na lu mu bàyyi ci ñoom yonent bi sallallahu alayhi loolu rolam la daana waar ak di digal ak di conseiller umma ummaam te ñam doon jàkkaarloo di ay saxaabam lu bare bare bare bare bare bare yàlla ci boppam sax daf ñuy waar dañu jox ay conseil yu bari donte nag ba ca gën a rëy mooy taqwallahi azza wa jalla nit ki nga waar ko ci ragal yàlla subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala waar nañu ci taqwallah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci waar boobu nga xam ni moom la abu najih al irbaad ibnu saariya di nettali ni yonente bi waar na leen waar boo xam ni bu jotal la boo xam ne dem na ba xol yépp jàq nee na ngay xool rangooñu ñuy xebebe bi ngir li leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ak di delloo ci alquran sunna loolu nag la muy tegtal mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ko doon génnee lamiñ wu set wu sell ci la ko doon génnee waaye ña jàkkaarloo woon ak moom muy saxaabatul kiram ay xol yu sell xolu jullit lañu am ndax jullit bi mooy koo xam ni suy déglu alquran wala di dégg ay ndé wala ay laaya biir yu jóge ci borom bi subhanahu wa mu am lum mu def ci moom innama almuminuun innama almuminuuna alladina ida dukira allahu wajalat wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imaanan wa ala rabbihim yatawakkaluun yàlla subhanahu wa taala piir jullit dëgg-dëgg mooy koo xam ni buy déglu waxi yàlla subhaanahu wa am na lu muy def ci xolam nee na buy jàng alxuraan wala muy jaamu yàlla subhaanahu wa taala nee na nga gis muy jeexantal ci ay cëram imma xol bu tiit xol buy dellu ci borom bi wala rangoñ buy tuuru wala leneen luy wone ni kii kat wax dëgg yàlla ko am jeexantalu la ci li muy dégg mu jugee ci borom bi subhaanahu wa taala wala ci yonent bi moo tax bis boobu saxaaba yi dañoo ni yonente bi sallallahu alayhi dafa mel ne dangay ngay tàggoo naan démb ak bërki démb daa nga nu dénk démb ak bërki démb daa nga nu waar waaye tey dafa mel ne dangay ngay tàggoo kon nag dolli ñu ak ndénkaan ka annaha mawidatu muwaddiin fa awsina kon dolli ñu ndénkaan ndax mu mën a nekk sunu ndëgër laay buñ la gisul ëllëg buñ la gisul suba ñu mën cee jàpp yonent bi ne leen usikum bi taqwallahi azza wa jal maa ngi leen di dénk ragal yàlla gis nga mbokk yi lu waay ñàkk te ñàkkul ragal yàlla ñàkkul dara mais lu waay am te amulug ragal yàlla amul dara ragal yàlla mooy li lay aar fii ci àdduna di la aar ci àllaaxira ragal yàlla mooy tax ngay jug di jaamu yàlla def santaane yim la yim la digal ragal yàlla moo lay poussé ba nga moytu sa kémta kàttan li la yàlla tere mu nekk lu xaraam kii xuus ci moy ak ragal yàllam des na ki ci nekk suba ngoon bal di ko fésal sax ak di ko ndamoo ak ragal yàllam des na kon li jiitu ci mbir mi mooy ragal yàlla li jiitu ci mbir mi mooy ragal yàlla yàlla subhaanahu wa na dénkoon naa leen yéen ak ñi ma joxoon kitaab ñu jiitu leen li ma leen dénkoon mooy an ittaqullah ngeen ragal borom bi subhaanahu wa taala yonent bi leen di dénk ragal yàlla ali ibn taalib nee ragal yàlla ñeent la alxawfu min aljalil wal amalu bittanzil walqanaatu bilqalil wal istidaadu li yowmi rahim ragal yàlla tiit ko tiit ay mbiram di préparer saa su nekk ni dina leen préparer li fi amoon jeex na waaye di doylu ci lim la xéewale mu tuuti ak mu bëri yonent ni wa ala sam'i wa taa dee leen dégg ndigal tey topp ndigal dégg ndigalu yàllaa ko yonentam waaye dégg ndigal ñi nga xam ni ñooy woroom xam-xam yi ak ñi yàlla teg ci seen loxo ñu war a gouverner suñum réew wala suñuy réew ñooña nag seenub topp dafa aju ci topp yàllaa ko yonentam ndax li ñuy digal benn la ci ñett yi dañ ñuy digal lu yàlla santaane ak yonantam bu boobaa ñu topp leen ci ndax yàllaa ak yonantam a ko santaane wala ñu digal ñu loo xam ni yàlla ak yonantam dañ koo bañ bu boobaa duñ leen ci topp bi nee na laa taa'ata li maxluqin fi ñu dig digal ñu loo xam ni yàlla terewu ko ko yonantam yonent euh, euh, taw gis ñu fu mu wuuteeg sharia bu boobaa moom lay gën ngir moytu fitna mooy topp leen moo tax mu ni na ngeen dégg ndigal te topp ndigal même su fekkoon ni sax ki ngeen jàpp yéen ni moo gën a ñàkk solo ci ci ci seenu gisin moo leen jiite bu boobaa comme mooy seen kilifa topp leen mu ni nag maa ngi dem ndax duma fi sax waaye wa man yaash minkum fa sa yara ixtilaafan kathiira ku yàlla guddal fanam dey ci yéen ñii jàkkaarloog man ak seeni doom ak seeni sët ak seeni sëtaat yi ñëw ëllëg fa sa yara ixtilaafan kathiira dina gis wuute gu bari gu wuuteeg fii ma leen teg ñëw naa fekk ngeen tasaaroo ma boole leen ñëw naa fekk ngeen nekk ci bokkaale ma dugal leen ci tawxiid ñëw naa fekk ngeen nekk ci ay caaxaan ak leneen ma teg leen ci dëgg ngeen nekk ci benn yoon waaye ku gudd fan dina dem ba jullit ñi bàyyiwaat ànd ba leen yonent bi sallallahu alayhi tegoon nekk ci yeneen nekkaat ci bokkaale yi nekkaat ci bidaa yi nekkaat ci yeneen ak yeneen yoo xam ni tey bu yonent bi sallallahu jugaatoon du xàmmee ndax ñi jullit la wala du ñuy jullit yonent bee ko wax de nee na wa man yaish minkum fa sa yara ixtilaafan kathira ku dund ci yéen di nga gis wuute yu bari waaye bu boobaa fa alaykum bi sunnati wa sunnati alxulafa arrachidin almahdiyin nee na su ngeen gisee wuute kenn ku nekk di xëcc jëme ci booram kenn ku nekk di xëcc jëme ci waayam kenn ku nekk di xëcc jëme ci maamam kenn ku nekk di xëcc jëme ci santam kenn ku nekk di xëcc jëme ci dëkkam kenn ku nekk di xëcc jëme ci boppam nee na bu boobaa yéen na ngeen xëccu na ngeen euh, jëm ci sunna si nga xam ni samay xulafa ci lañ tegu woon muy abubakar omar osman ali fa aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafa arrachidin almahdiyin na ngeen tegu ci sunna ci yoon wi ma nekkoon yoon woowu nag mbokk yi danga koy jàng danga ciy góorlu di di ci sonn ngir nga xam ko bëri na foo du bëgg a dem xamoo ko dangaa laajte yoon wa lu toll ne yoonu sunna nag yoonu eh, bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon nga xam ne boo ca jaaree terminus ba mooy moom nga fay fekk war nga góor góorgóorlu ba xam ko loolu du lu ñuy nekk nii rek di ko eh, dégg naag yaakaar naa déedéet daf lay jaral dara nag daf lay jaral nga dem gëstu sa diine daf lay jaral bërëb yi ngay dem di toog ngir diine nga mën leen a xàmmee bërëb boo xam ne boo fa ñëwee dañ lay wax alquran wax la sunna bërëb boo xam ne boo fa ñëwee dañ lay wax lii lislaam santaane bërëb boobu boo fa demee di nga fa xamee sunna yonent bi sallallahu waaye bërëb boo ñëwee sama baay ak maam rek laa lay wax bërëb boo xam boo fa ñëwee dama naan la rek maa la gën ndax maa sant sant woo santul bu boobaa doo fa xamee mukk sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa na na ngeen moy ci sama sunna ak sunnay samay xulafa ar-rashidin na ngeen ko téye bu baax a baax a baax seeni dëgëj waxin rek la sunna kenn du ko téye ci dëgëj mooy ak su obstacle boo mën a daje ku mën a taxaw sa kanam bëgg la koo xañ bu jaree nga jox ko bakkan bi nga jox ko bakkan te ngoy ci alxuraan ak su jaree nga ñàkk àdduna ak li ci biiram na la ko jaral te nga ngoy ci alxuraan ak sunna su jaree ñu bàyyi la nan la bàyyi te nga ngoy ci alxuraan ak sunna su jaree ñu tuumaal la fa soo tuumaal bu ne nangul da nga ca alxuraan ak sunna su jaree ñu dëkkal la foo dëkkul jox lay tur yoo moomul di la xoole nun la warta xoole wala sax ñu feggal la ci société bi nangul te moytu alxuraan ak sunna loolu la Bilaal ibnu Rabax defoon ñu koy diri ca mbedd Màkka ya mu naan ahadun ahad loolu la Ammaar ibnu Yaasir ak Bayba yaasir ak yaay ja sumayya nangu woon ba ñu rey leen rey yaasir rey sumayya ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen min as-saxaaba ñoo xam ni mooy nañ ci te bàyyiwuñu benn yoon ba yàlla subhaanahu wa di yóbbu seen bakkan min almuminina rijalun sadaqu ma ahadu llaha alayh fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila loolu la leen yàlla bàkkee yonent bi sallallahu alayhi wa nee na di nga gis wuute bu bari su boobaa na moy ci sama sunna yoon wi ma teg ak yoon wi xulafaa rashidin teg foofu mooy yoon wa foofu loolu mooy tariixa bi yonent bi sallallahu alayhi wa teg kon nee na nañ ko gëstu te nekk ci da nga moytu nag wa wax wa bi bidaa nee na na ngeen moytu bu baax a baax a baax yéen sos ci diini ji te ci bëri na yu ñuy sos ci diini ji te bokku ci yii folklore ko ci dugal yii ak réer ko ci dugal yii ak parparloo ko ci dugal yii yeneen ak yeneen ak yeneen ñoo ko ci dugal ñun nag Sénégal moom bëri na lu jaxasoo ci suñu diine ji loo xam ni folklore dong la ñun suñu diine lu ci bëri folklore la boo xool lu bëri ci suñu diine tëgg la fecc woy suñu ndajey diini sax yu bëri tëgg fecc woy du yépp nag ndaje xam-xam a ngi fi ndaje yu sell a ngi fi ndaje yu baax a ngi fi waaye suñuy ndaje saa yu bari tëgg fecc way ci turu diine ci turu lislaam jàpp ni tuyaaba lañ ciy wut yonent bi sallallahu alayhi nee na yi ñu bëri yi ñuy sos ci diine ji ëllëg yomal ëllëg ci euh, kaw suuf na ngeen ko moytu ndax lépp lu ñu sos bidaa la te bidaa fa muy yóbbee nit ki mooy ak réer yàlla nañ ci borom bi subhaanahu wa taala musal kon mbokk yi yàlla nu yàlla saxal te alxuraan ak sunna yàlla nu yàlla won yoonu siraatal mustaqim ñu ñu ci coow te sax ca yàlla nu yàlla booleeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ëllëg yowmal qiyaama yàlla nu yàlla dugal àjjana bi gayri xisaabin wala azaab allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa wa arina albaatila baatila warzuqna ijtinaaba allahuma laa tadaa lana damban illa gafarta wala hamman illa farajta ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم